mais keroog dama koo fekk 2 mu def loo xam ne dama ko xeeb parce que dama toog man ku ma gis 2 xam ne Ouzin Keita laa àndal Ouzin moo ma indi 2 mu ñëw ba fi ma toog man ak Ouzin di saaga Ouzin ay na. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi tooñ ju gàllaaj kii li mu def nii tey jii bu maam tontoo yéen ñëpp ngeen taxaw ne maam dafa mën a tooñ daa soxor lii tooñ nit ki la yow gënoo rafet maam Ndiaye Savon yow gis nga sa tuñ yi di mel ne leevaru data xam nga ne gënoo rafet kenn sa kanam gii di mel ne sili bu maçon kenn gën yow yaa ngi yow maama la dàq junni yoon ëppale la lépp bàyyi leen bu ngeen bëggee bës di tooñ nit ki tooñ du gàllaaj maam tooñu leen mi ngi ci liggéeyam jigéen ju man góor la jàppale leen ko te bàyyi di ko tooñ bàyyi leen tooñ bàyyi leen tooñ maam tooñu la bu ko tooñ ëppal nga bëgg nga bës te soxor nga yow mi yaa soxor nag maam soxorul yaa bon gars yi bu loolu jàllee Eva Rose ñaanal leen ko yàlla mu xippee jee àjjana parce que ay xale yu ndaw la bàyyi joxe bakkanam ëmb ba diis jur doom doom ju juddu mu bàyyi ko ci àdduna moom génn àdduna sauvé na vie joxe na bakkan moom pour bakkanam mën a dem yaay kenn mënu ko fay day gis nit defal yaay ay milliards foog defal la ko déedéet amu leen fayam juróom-ñeenti wet ëmb ba diis ëmb ba diis wàccee la nga mel ni nga mel loo ko defal loolu des na fonk ñun suñu yaay ñu gën koo euh, jàpp yaay du moroom Eva Rose xale yu ndaw la bàyyi yàlla na ko yàlla xaaree àjjana mu xippee ja àjjana te xam naa ne ma nga fa teg ko ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu teeru ko jox ko ci àjjana yu kawe ya yal na ñëppam jàmm maa ngi ñëw live salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi di 17 août liggéeyuma bu ma kenn woo di 17 août damay focus Youssou Ndour rek biir Brescia adduna bi yëpp a ngi koy waajal Italie gi yëpp a ngi koy waajal Brescia la 17 août dina mel ne suppu jaañ 17 août bu leen ko kenn littil sunu papa Youssou Ndour bàyyi Birane Ndour mooy wàcc biir Brescia dana ko toj ndax li mu préparé Brescia Youssou Ndour xam ngeen ko soxor na Youssou Ndour xam ngeen ko ay wayam soxor na Youssou Ndour xam ngeen ko du wayantu Youssou Ndour xam ngeen ko ah ay wayam wayu ay wayam ay wayam képp ku ko namu rek le 17 août na la fekk biir Brescia Popo pare na Iba pare na Seydina pare na ñëpp pare le 17 août incha allahu rabbi ah dama bëgg Emilia Romagna Veneto Lombardia waa Lecco waa Vicenza waa Verona Bologna Milan ñëpp ak Bergamo biir Brescia le 17 août Brescia rek